ak suñ feeti bopp yi nga xam ne dañ koy woote lu mel ni màggale ki gàmm ak yooyu loolu lañ am 24 ak 31 nag dafa am ñu ko moom ginnaaw nag feetu pas-pas la lépp loo xam ne feetu pas-pas la ab jullit ñu mu ca pas-pas nag mooy wàllu aqida mooy wàllu imaan ndax buñ na laa ab bukkeeŋ ci xur wii bu fekkee gëmoon ne bukkeeŋ ci doo jël wet waaye buñ ne bukkeeŋ ci xur wi nga jël wet dangaa ngaa gëm ne bukkeeŋ ci xur wi kon feet gi buñ ci waxee na nangam moo ci xew loola ci xew sa alxuraan nel déet boo nee waaw am na lu xew loolu moo tax du sunu feet nun jullit yi feetu ay dëkkandoo lañu ñoom seen feet la te it fañ koy defe ji ñoom sax bokkut ak jullit yi koy jéem a def fi ñu koy defee ndax jàpp ne dañ ko war di fecc di ci def yeneen ci biir ci guddi gi loolu sax xam naa ñoom war nañ ñoo war nañoo porter plainte sax ñi nga xam ne ñoo koy def nañu ne bàyyi leen suñu feet gi ngeen di yàq hasawa billahi tawfiq